Ah, Pape Djibril un peu visa yi comme ça nga mën a wàcc euh, xam naa ni moom tëddagoo yu bëri yu bëree ngi lay xaar ma bëgg la teel a rek euh, noo gisee visa yooyu. ci sa gis-gis yanu na maanaa ñu delloo si ko wala wala dañ ko war a dañ ko war a bàyyi nii rek ku ku mu neex ñëw dugg si dëkk bi. man der li ma si wax mooy euh, il faut souvent que décision yi ñuy jël ñu mesurer enjeu yi parce que yenn saa dem ci mbir dellu si ci à chaque fois. Euh, des fois dañ dul dañ dul jël temps mesurer enjeu yi ba mu mat sëkk dañ dul jël temps xalaat ko ba mu mat sëkk ba dimbali ki nga xamante ni moom mooy président de la république parce que collaborateur aussi loolu rek lay jëriñ parce que par extrapolation boo xoolee affaire Amadou Wuri Diallo bi dañu dégg président de la république mu ne dañ maa wax signer rek ma signer après il revient xamul sax nee na kan lañ ko signaloo après bi ñu laajee ki yor administration pénitentiaire mu ne c'est un dysfonctionnement mais à l'avenir dinañ ko xoolaat c'est trop simple pour man beneen bi mooy li xew bërki demb si IPRES nga jël décret nommé nit conseil d'administration bi ne da ngaa juum ci lu toll ni président de la république avec son cabinet ak information ni ñu ko waree am donc pour man un état c'est sérieux wax nga ko léegi en 2013 jëloon nañ décision bi mais bu ñu fàtte ne 2013 bi ñu ko jëlee. ba 2015 ñu bëgg ci dellu si mais bu ñu fàtte ne entre temps mais y a l'affaire Big Togo avec les 12 milliards yi nga xamante ni indemnisé woon nañ ko ci mais loolu pour man tey jii bu bu ñuy aborder lii dañ koy ci aborder waale c'est important parce que su mën nañu wax ne entre guillemets ça avait fait perdre à l'État sénégalais le contribuable sénégalais presque 12 à 13 milliards je pense que lool c'est extrêmement important question de bonne gouvernance la question d'appréciation la question de planification la moi je suis pour le réalisme pour la réciprocité oui mais réalisme oui aussi donc il faut que tous les acteurs notamment ñi nga xamante ni ils seront directement impactés ñu euh, ñu jël ñu jël mesure bi teg ko seen kanam càmbar ko notamment ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci secteur touristique ñu xool bu baax a baax lan mooy enjeu bi maanaam lan lañ ciy perte ak lan lañ ciy gagné parce que le ministre de l' ci interview boobu noonu daf ciy wax mbir yu bari yu am solo parce que fi muy aborder la question de la réciprocité sax dafay wax ne fi mu ne nii étranger yu nekk ci réew mi il avoue lui-même que xamuñu la nombre donc pour man loolu benn élément la rek bu dee da nga bëgg a jaay fulla rek. mais nañu commencé d'abord par wax France ne ko génnal ci conseil d'administration français CFA bi nañu commencé ci entreprise française yi ñëw Sénégal ñu bàyyi réciprocité ñu bàyyi di leen defar remise gracieuse ci li nga xamante ni moom mooy fiscalité bi nga xamante ak impôts yi nga xam war nañ ko fay mais nañu commencé d'abord ci càmbar yooyu nga xamante ni bu ñu ci paree mais lële dafay couler de source donc encore une fois man bëgg naa réciprocité waaye réalisme bi def ci am solo ñu mesurer impact yi muy am sur le plan ci impact positif comme impact négatif te ñu delluwaat aussi ci mesure bi bi ñu ko jëlee li mu coûté woon Sénégal ak nan la ko coûté woon Sénégal et que toute la transparence et que la transparence soit faite par rapport à cette affaire ça nous permettra de rebondir bu ñu defee état des lieux bi mesurer enjeu yi merci Pape